Cheikhna Cheikh Sadibou Keita maa ngi lay nuyu. sant bu baax a baax maa ngi lay delloo nuyu. alors nga nekk nag euh, ab ancien euh, commissaire de police ñu gis nag euh, fi mu toll nii ñàkkum kaarange gi fi am rawatina ci arène nationale yi nga xamante ne làmb ji fa lay amee supporters yi nga xamante ne daanaka dañuy nekk ci jàppal bàyyi ba am na ci sax kenn koo xamante ne dafa jël bal pour yow lan moo indi lu ni mel. nga ci àddina bi di fa bari nekk ay junni junni nit occasion la pour que ñenn ñi ñëw fa pour li nga xam ni moom lañ fa woote mais pour que ñenn ñi ñëw fa pour li nga xam ni moom lañu bëgg loolu moo tax mu am ay nit ñi nga xam ni dañuy déplacer foofu profiter ci situation boobu pour dal ci kaw nit ñi profiter situation boobu pour dugal seen loxo ci poosu nit ñi ci situation yu mel noonu nag ci ngay gis ñeneen ñi nga xam ni ñoo ëpp sañ-sañ ñoo ëpp gën a néeg ñooñu dañuy ñëw ak ay paaka ak ay fetal utiliser paaka ak fetal yi pour dal ci kaw nit ñi jël seen alal loolu day yàgg naa am day continuer am à chaque fois que moo am ay rassemblement surtout fi nga xam ni ay environnement lay nga xam ni football daf koy am wala bëre surtout bële nga xam ni tendance yi nga xam ni moom lay àndal ci comportement mooy dóorante dalante day facile ay nit taxaw ci situation yu mel noonu pour indi fa leneen lu dul bëre mooy fexe ba sàcc wàllu mbaa ji dal ci kaw su dee nag fetal la fetal de plus en plus dañu commence dañu gis ni fetal mu ngi commencé feeñ ci Sénégal di bari ci Sénégal pourquoi parce que ci at yii ñu génn dafa am ay phénomènes yu fi am yi nga xam ni dañ naan ay nit génn nañ ci mbedd mi ay nit dee nañu rey nañ leen fetal nañ ci ñii fetal ñu ngi ci biir nit ñi ñii rey ñu ngi ci biir nit ñi il faudrait que ñu comprendre ni fetal yi ñoo gën a bari ñoo gën a yomb actuellement ci biir nit ñi état bi jël ay dispositions pour mën a gérer loolu. mais bu ñu demee ba ne balle réelle loolu yi doon na loo xam te ni tamit euh, jafe-jafe la. waaw mais dama la ko wax ni la. bal réelle. bal bal la dafa réel dëgg la ku ñu jam balu fetal ci bopp loolu dëgg la dëgg boobu il na foofu pas que ñu contourner que di dem seet ci suñu jaaxle solution bi dafa am ñuy organiser dañ ci am responsabilité ci aar nit ñi ci fi ñuy organiser au minimum ci li nu mën en tant que civil am ñi nga xam ni loolu la leen fi yàlla tege muy état bi nga xam ni moo nu yore police bi ak gendarmerie nga xam ni loolu mooy seen mission donc su phénomène amee bi nga xam ni nit daf ci utiliser fetal bi nga xam ni dafa am balle réelle pour pour pour pour pour gaañ nit loolu dañuy tenir compte de cette réalité la taxaw taxaw ci taxawaay yu dëgg yu wér. anticiper ci li nga xam ne moo fay xew mooy balaa dara di am ñu fexe ba xam ni lii mën na am déjà mais su amee ba pare ñu topp ba xam ñan ñoo ko def je crois que yooyu mooy ñaari dispositions yi nga xam ni fa la ñu war a mën a taxaw pour que à chaque fois situation am bi nga xam ni lii mën na fa répéter parce que fetal bari na fi léegi lii mën na fa répéter ñu fexe ba balaa muy am ñu taxaw tam am taxawaay mais su amee ba pare pour ñu mën leen topp ba xam ñeen ñoo ko def. alors ndax yomb na tey jii contrôler ndaw yooyu li nga xamante ne ñooy ñëw ci làmb ji. su fekkee ni dañu choisir organiser làmb dañu xam ni lii mën na fa am parce que mës na fa am wala war na fa mën a am dañu war a taxaw ci fexe ba contrôler situation bi du contrôler ndaw ñoo contrôler situation bi en tenant compte du fait que loolu mën na fa am parce que amoon na fi en tenant compte nag nga xam ni amoon na fi lii ak lii ak lii moo ko donc suñu duggee ci biir logique boobu ay jàngat lay laaj ak responsabilité bi nga xam ni état bi moo ko yore ci organiser ñi ko war a liggéey organiser ñi ko war a jàngat organiser ñi nga xam ni dañu war a fexe ba loolu suy am yi tamit na doon lu néew a néew parce que phénomène de société la day am forcément day am violence day am mais lii résultat bu baax bi mooy ñu fexe ba amam néew néew néew néew te dégâts yi muy causé yi tamit doon dégâts yi nga xam ni tout le temps askan wi day jooy askan wi day jàmbat mais c' est possible c' possible que ñu taxaw ci su fekkee ne dañu ko di organiser ay lut ak ay sport il faut que ñu comprendre ni lii liggéey la il faut que ñu taxaw ci de manière sérieuse organiser ko ba mais anticiper ci li nga xam ne mooy permettre véritablement ñu mën a circonscrire mal bi ba loolu du déborder ba loolu du àgg si nga xam ne war fa àgg. alors mu mel ni nag ci ay événements yu ci mel ni làmb ji ci la ñuy profité rek di def yu ci mel ni ay waaw agression yàgg na fii ci forme yu bëree bëri fii ci Sénégal. agression mën na am daan na am fi nga xam ni làmb amu fa football amu fa leneen amu fa mais de plus en plus agression day am fi nga xam ni football dafay am làmb dafay am particulièrement làmb nga xam ni tendance u violence yi fa nekk parce que du football du du football mais sport la bi nga xam ni bëre la tóorante la sport la bi nga xam ni tamit nit ñi dañ fay ñëw ci circonstances yi nga xam ni di nga mën a calculer ni kii soo fi poosoo jël ci moom dara agresseurs yi agressé wuñu rek pour que parce que làmb ji dafa am dañuy dóorante mais dañuy agressé parce que dañu bugg jot ci alalu nit ñi nga xam ni dañ fa ñëw suñ suñu suñu duggee ci biir nit ñi donc su fekkee ni téeméeri nit ñoo fi ñëw pour pour euh, seetaan làmb ji na nga xool ci biir téeméer yooyu xëy na téeméer bu nekk di fukk wala ñeent wala juróom yi nga ne ak caay-caay moo leen fa indi caay-caay boobu nag dafay continuer di am moom mooy agression ni ñu ko doon defee benn par noonu la ñëwee di ko def circonstance su nit ñi bari nag léegi day favoriser que ni ñu mën ko def ba noppi rëcc loolu liggéey bu rëy la pour mën ko contrôler mais dafa mel ni li nga xam ne mënut a ñàkk ci li nga xam ne moom la ñuy woote li si mënut a ñàkk il faut que ñu seet nan lañ koy seppee su fekkee mu ci biir su fekkee mu ngi doon askan wi am jàmm. alors mu mel ni yemuñu rek ci agressé la dóor la gaañ la waaye tamit dañuy sàcc foqati li nga yor. waaw mais loolu mooy bitu agression bi agression pour du pour dóor la gaañ la parce que doo gis difficilement ngay ki nga xam ne projet mooy. dem jàpp waa ji dóor ko gaañ yi dem gaañ ko dem seenam da ngay dóor xoqatal d'abord su ko xoqatalee xam ne xoqatal bi ubbilu ko bunt mu dóor ko su ko dooree loolu ubbilu ko bunt mu dóor ko gaañ ko xoqatali mu nangu dem yoonam loolu mooy projet wu sàcc loolu mooy projet wu agresseur loolu nag la police ak gendarmerie ak état bi war a jël en ci situation yu mel noonu circonscrire que ba xam ni nii la tollu ñëpp bi nii la toll suñu xamee ñëpp bi ni mu toll ak doxalin bi naka la ñu mën a indi ay faj yi nga xam ni moom mooy tax askan wi kenn dootu leen agressé pour jël seen alal parce que da ni agressé waaw pour gaañ la mais agressé pour jël seen alal donc finalité kiy agressé mooy jël alal ñu xam ñan la anticiper ci loolu xam naka la ñuy ñëwee naka la ñuy taxawee fexe ba balaa dara di am ñu teg leen loxo wala balaa dara di am ñu ragal loo leen fexe ba bu dara amee tamit ñu teg leen loxo askan bi mën a xam ni kat ñoom ñu ngi leen di aar ku ci kuñ ci dal si yow bi yoon nga xam ne da ngaa ñàkk chance xëy na mais police ak gendarmerie ak état bi ñu ngi def seen kémt lay kàttan pour que à chaque fois situation am agression yi du fa am kenn du fa jël alalu kenn. waaye tamit est-ce que du li ñuy organiser làmb ji euh, guddi gi est-ce que du loolee tamit euh, mooy indi yenn insécurité yi. waaw su ñu nee organiser làmb guddi mooy indi insécurité yi conséquence loolu mooy bu ñu organiser te làmb guddi man gisuma loolu parce que ci réew yëpp ci àddina da ngay gis match football bi nga xam ni coup d'envoi vingt heures coup d'envoi vingt heures ça veut que match bi minuit lay tas wala balaa dina jege minuit guddi dégg naa combat boobu mu ngi tasoon ay mu ngi amoon ay vingt deux heures sëggaguñu mais loolu yëpp dafay circonstance dañ ko war a mën a téye kenn warta mën a wax ni puisque agression dafa am ci combat bu guddee rek à ce moment combat yi nañ koy def bëccëg combat yi ñuy ki nga xam ni mooy organiser guddi na xam ni guddi kat circonstance la bee xam ni bokkul ak bëccëg ça veut dire que li mën a xew ci guddi mën na ñàkk xew ci bëccëg donc na tenir compte gi guddi gi ni mu doon renforcer sécurité bi état bi tamit bu xësee ba nangu <coughs> na tenir compte ci circonstance de nuit bi muy guddi gi renforcer sécurité bi ci anticipation yi muy def mooy ci waaj ci jiital bi muy jiital ni lii dara mën na fi am mu jiitu ñi nar a def taxaw gën leen taxaw gën leen dëggal taxawaayam gën wane boppam ak ci li nga xam ni moom mooy à chaque fois que dara am ñu mën a topp ñi ko def topp seen gannaaw mais man munuma ma gis ni dañ naan anticiper ci guddi euh, combat bu am ci guddi rek euh, réponse bi mooy ñu fexe ba jël ko yóbbu ko ci bëccëg suñ ko yóbboo ci bëccëg à ce moment dara du xew suñ ko yóbboo ci bëccëg dara dina xew donc guddi wala bëccëg. responsabilité rek la responsabilité technique muy police ak gendarmerie responsabilité régalienne muy li nga xam ne état bi dafa daf ko am ci ndoddam mu war a ëpp absolument mu assurer sécurité wu citoyen quel que soit l'heure quel que soit la nuit quel que soit le jour. waaye tamit li jëm ci euh, sous-effectif euh, agent police yi est-ce que loolu yi tamit euh, waruñu ko yokk. waaw loolu mun na nekk ñu am ñu ubbi ci ay waxtaan ni effectivement alkaati yi mais. situation bu nekk ak li mu laaj stade la ñu wax su fekkee ni match si day am wala leneen day am bëre day am état bi war na jël ay responsabilités dès l'instant où moom d'accord na pour que loolu am war na jël ay responsabilités ki at yii ñu génn il n'est pas un secret que ni police bi ak gendarmerie bi seen effectif yokku na trop trop trop trop par rapport ak année yi la jiitu woon te année yi jiitu woon malgré ça dañ doon organiser donc li ñu jot a am nii moom la ñuy liggéeyee mbir mi mënuñu xaar ba am effectif yu gën a doy pour mën a taxaw taxawaay bu gën a dëgër tey la tey tey jii ci tey jii lañu war a génne li ñu am pour que situation bu mel ni bu amee ñu teg fi liñ fi am am na lu fi nekk am na ay jumtukaay yu fi nekk mais pendant que ñu ngi génn état bi tamit jël responsable yokk effectif yi su fekkee dafa manqué. li jëm ci caméra de surveillance yi tamit est-ce que waruñu ko yokk léeg-léeg mooy génni wala fësal yenn ñaawteef yi. caméra de surveillance boo déggee ji wax caméra de surveillance rek ay pexe la après coup li muy indi comme conséquence mooy en général bu ñu defee mbir mi ba pare ñuy seet kat moo ko def nan lañ ko defee fan la woon ñu interroger caméra yi ñu génne ay information fekk mbir mi am na ba noppi en général li ñuy indi ci prévention c'est-à-dire aar nit ñi balaa dara di xew en général dafay tuuti parce que ñi nga xam ne dañuy déployer di def ay ñaaw def ci biir askan wi seen xel du nekk ci ay caméra de surveillance donc oui caméra de surveillance pour que liggéey bi mën a compléter parce que ay jumtukaay yu moderne la mais li ëpp solo ëpp solo mooy taxawaay bi ak teewaay bi nga xam ni force de défense et sécurité war nañ ko taxaw pour mën a aar askan wi responsabilité bi état bi jël ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk pour aar askan wi soo yokkee caméra de surveillance su doyul nga yokkaat yi tamit c'est une chose c'est très important mais man maa ngi placé wu toujours au niveau de la responsabilité professionnelle au niveau de la yi war a def li gendarme yi war a def ci taxawu situation yooyu li organisateurs yi war a def pour que seen collaboration ak force de défense ak sécurité seen seen seen investissement ci sécurité dana fa nekk war ni nga xam ne dañ ciy respecté waale askan wi xam ne askan wi moo tax ñuy organiser donc dañu war a investir bu baax a baax a baax a baax ci sécurité bi état bi tamit xam ni moom mooy autorisé lu mu autorisé rek dafa am responsabilité mu doon jàmm askan wi mu def ci lépp luy kam talaayu kàttanam ci problème mu sécurité bu dee ay caméra ak bu dee leneen de mu def ci tëbtaay kàttam ci problème mu sécurité. alors ban euh, message nga am rek euh, looy lancé gouvernement gu yees gi. gouvernement bu bees bi li ma am leen wax daal mooy euh, jamono ji dafa nekk jamonoy pëccëxoo ñu traversé ay moment yi nga xam ne ci at yi nit ñi xale yi ndaw yi dañu dem ba miin deret miin jam miin fetal di gaañaate di dëkkaate di dem. te du tere lu dee bi bari bari bari bari su ëllëgee ji jógaat daal di demaat seen yoon mel ni dara xewu fi loolu responsabilité état la mu war a taxaw génne ay matukaay ci loolu te xam ni su loolu mën na bañ a dellu gannaaw su fekkee ni kenn deful dara génne ay matukaay ci li nga xam ni mu ngi jëm ci circulation fetal yi fetal yu ndaw yi nga xam ni moom la nit ñi di yore te fii Sénégal fu dara am rek su dee benn affaire am na sax ci benn station boo xoolee dañ naan benn xale wala ñaari xale ku nekk yoroon na fetal ñu tenir compte de cela gën a ñawal seeni pexe gën a dooleel seeni force de défense et de sécurité ba nu mën a taxawu loolu. en tout cas jërëjëf Cheikhna Cheikh Sadibou Keita may fàttali rek ni yow ancien commissaire de police nga ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax. merci ñu bu baax a baax. merci.